mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, ñu ngi leen nuyu bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéenay bàyyi xel muqaddamatul xidma tv euh, rawatina jataay bii nga xam ne moom lañ baaxoo ànd ak yéen weer wu nekk ñaar fukki fan juróom ya te mooy xayaatu Cheikh al Xadim dunduk sëriñ bu mag ñu baaxoo ci ànd ak yéen waaye ci taxawaayu daayira muqaddamatul xidma yi nga xam ne ñooy taxawee lépp lu jëm ci saytu ak toppatoo ak sàmm jumaa Cheikhul Xadim ji nga xam ne fi lañuy ñuy àddoo ngeen di ñu teewlu euh, ginnaaw bi ñu ziyaaree ak Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér ba mu àggale ay yéenam ak i naalam te lépp ñu ànd koog moom ñaanal ko itam ngërëmal sëriñ bi eh, ñu ngi dellusiwaat nag tey ci seen jataay boobu nga xam ne moom laa wax léegi di xayaat Cheikh Khadim eh, ngir wéyal nag waxtaan wi nga xam ne tàmbali woon nañ ko ci jataay bi weesu te mu jëmoon ci tënk aslëf ci dund ak jikko yi sëriñ Bousso bi mi nga xam ne wax naa ne li tax ñu tudd ko fii ci xayaat Cheikh Khadim mooy def daa bokk daa bokk ci dunduk daa bokk ci dunduk sëriñ bi ni ci ñi ñu waxtaane woon te ñu jiitu ko bokke waxtaane nañ tafsir Mbàkke Ndumbe waxtaane ñaari way jërëm yu baax ya a Cheikh Mor Anta Sali ak a Cheikha Jaaratullahi Mariam bu ngeen fàttalikoo ci jitaay bi weesu ñu ngi yemoon ci euh, waxtaane lenn ci jikko yi sëriñ Bousso bi ba fi nga xam ne fi lañ daaneele woon te mooy bi nga xamee ne yàlla dogal na ñu dem Saalum ba mu sanc naawel suñ mor na sali sanc Poroxaan tafsir baara xujja sanc aafe ba ni yàlla dogale soxna sawaada dese naawel dañu waxoon ne tafsir Mbàkke Ndumbe itam jàpp nañ ni ci li li gën a siiw euh, naawet la la la des euh, waaye ñu waxoon ne sëriñ Bousso bi dafa doonoon jëmm joo xam ne ku amoon wàccuwaay la ci sëriñ bi sëriñ bi am wàccuwaay ci moom moo tax na ñu bëggoon tey jataay bi xamle rek loo xam ne day doon stënk ci relation wala diggante bu rafet bi nga xam ne moo doxoon diggante moo moo nekkoon ci diggante sëriñ Bousso bi mi nga xam ne euh, mooy euh, bokkum soxna jaar mi bokk moom lépp waaye dox ci diggante mag ni ki nga xam ne ab jarbaatama doon xaritam doon wéttalam doon soppeem doon léppam di Mawlana Cheikh Khadim diggante boobu nag bokk na ci li ci gën a fës mooy kóolut ginnaaw cofeel bu doxoon seen diggante cofeel gi lépp delluwaat ci yàlla Euh, li muy doon doon nijaayam moom sëriñ bu soobee ku nawoon sëriñ bi la ku ko teel a naw la ku ko teel a bàyyi xel la ku ko teela def ni ko yàlla def la itam te loola cofeel googu ak nawloo googu ak naw googu itam tax na mu wóolu ko doyloo ko ci boppam waaye doyloo ko ci njabootam moo dégg nañ ci suñuy waajur ñu dégg ci seeni waajur ñuy ay mag ñoo xam ne dañ dañ daan wax lu bari ne sëriñ bi daana wax ne sëriñ bu soobi day daf ma delloo bëgg lu mu jur rek jox na ma ko lu mu jur rek jëbal na ma moo xam góor la moo xam jigéen la loolu nag dayob kóolute ak dayob doyloo ak dayob yaakaar foofu la mën a yem daana teg sax di wax ne moom de noppal na ma ndax ndab lu may jox lu ne da koy raxas ba mu set ba nga xam ne dara du ci des lu dul def rek duy loolu daana ko wax ci nijaayam bu baax bi euh, te it firnde ji ci gën a jege it mooy ne euh, mbokkum Seexul Xadim mu baax mii di maam borom saam doon borom xam-xam bu mag jaamukati yàlla bu mag kenn ci gawari guddi yi nga xam ne ñu ñu xam lañ ñu siiw lañ nga xam ne naafilaam téeméeri rakka la daan doon guddi gu jot te alquran la ci daan jàng te maam borom saa moom yi mën nañoo wax ne mooy léppi sëñ bu soobe ni doon doonee nijaayam lenk noonu la sëñ bu soobe eh, sotti ko ci moom taxaw woon ak moom daanaka mën nañu wax sax ne moom ab ab ab cërëma woon moom moom dafa féeti woon sëñ bu soobe féete woon sëñ Bousso sëñ Bousso moo doon nijaay waaye moo doon bàyyi mi tam euh, daanaka tàggoowut ak moom benn benn yoon du ci waxtu wi ñuy dund ba ci waxtu wi ñu génnee àddina ndax tey jii boo demee fee ca armée li Bousso bee ca Mbàkke ngay gis ne ñoom ñaar sax ñoo bokk di noppalu foofu ci àjjana muy maam maam saam ak maam sëñ doy nañ sëkk misaal ci xam-xam ak ragal yàlla jub ak maandu ak sàmm tax am naa maam joo xam ne da daan faral di wax ne soxna soxna fët ñang way way jur suñu Alaaji Tàmba mu saan ba eh, ba maanaam xaali murid daal koy dugg mu tàng day wax ne sëñ sëñ day day daal joxañ jumaa ji ne kii moom kenn daa xamul lu mu doon moom kenn daa xamul lu mu doon waaye ñaar ñii de doy nañ sëkk kii maam ñaar ñii de lëf lañ ma ne ko kan nee ma saa nijaay borom saam ak sëñ bi son waaw moom comme ma ma maam borom saam dafay dafay nijaayam moo loolu moo tax mu daan wax saa nijaay boroom saam hmm. loolu yaakaar naa ñu ko xam-xam nañ ko moom jërët ma ciy sori <laughs> eh, kon bokk giñ bokk gis sëñ bi bokk ak maam borom saam nekk fenn nekk ci benn béréb te foofa doonoon kër sëriñ bi ndax sëñ Musaa bi fii ñu ko denc tey ci armeelu Musaa bi yi moo foofu kër sëñ Tuubaa la woon nga xam ne sëñ bi moo ko rafaatale woon keroog bi mu gisee Daaru Salaam te war a topp dem fa walla ko rafaatale sëñ Musaa bi bi defoon jàkka foofu xabru bi nekk jàkkam la woon fa lañ ko def euh, te wax naa an te wax naa at mi nga xam ne ci la génnoon àddina ci jotaay bi weesu Euh, kon doyloo gi sëñ Bousso bi doyloo woon sëriñ bi ba doyloo ko ci njabootam loolu firnde la ci diggante bu rafet bi nga xam ne nekkoon na seen diggante ñoom ñaar waaye doy na itam misaal ci seen diggante mooy ne ci ay loxoom la sëriñ bi tàmbalee am njàngum alquraanam loolu itam xam naa danañ ci desiwaat bu ñëwee ci njàngum sëriñ bi ndax donte am na ay am am na ñaari riwaaya wala sax lu ko ëpp waaye buñ sukkandikoo ci riwaayatu al irwa moom li muy wax mooy ne sëriñ bi bi mu tollee ci jàng rek wooy jërëm da ko jébbal nijaayam sëriñ bu soobe euh, bu dee riwaaye minan bi day wax ne moom euh, bi mu wàccee maanaam bi mu bi wàccee moom sëriñ bi li ñuy wax am soow daal la ko wooy jërëm jënga jébbal tafsir mbàkki na mi ñaar riwaaya yoo xam ne nag day xaw a niru lu wóote ci kaw waaye wóote bi amul solo te bu ñëwee ca euh, leeral euh, njaal biiru njàngum si bi danañ ko leeral insha allahu taala du wóote bu am solo lool waaye fii lu ñu fiiteel rek mooy ne Cheikhul Xadim radiallahu anhu wa ardaa bokk na ci ñi ko jàngal alquran te mu jiitu ci ñoom mooy nijaayam suñ musa bi loolu kon diggante la boo xam ne bu am solo la bi ci desit li koy firndeel it mooy xër gi sëriñ bu soobee xëroon lool ci sëriñ bi am njàngam sotti ab yaram itam àgg fa mu bëgg fa yooyu yëpp itam taxaw na ki taxawaay yu rëy yu am solo yoo xam ne àndoon na ko ak ñam ñam seqaloon sëriñ bi ci boobu jamono muy ku mel ne suñu mënoon sëri ak euh, euh, tafsir Mbàkke Ndumbe waaye seen diggante weesu na loolu waxoon naa sànq na loolu lépp li ko lal mooy cofeel gu ko sëriñ bi sopp soppoon sëriñ bi soobe lool ba jéggi de daan diisoog moom daan waxtaan ak moom dégg nañ xase boobu nga xam ne sëñ Moussa Ka mi ngi koy nettali ci njaal sëriñ bi bi sëriñ bi xelam nekkee ci génn gàddaay te ñu waxtaan ceeg nijaayam nijaayam am loo xam ne mënu ko koo wax ngir jege gi mu ko jege tax na mu ne ko demal seeti Maxtaar Penda si moom itam di ko am solo di mag moo xam ne ci mag ñi am solo lool ci taarixu réew mi rawatina ci taarixu askan wi ci la bokk doonoon itam nit yàlla bu xam lu bare bari nag yàlla déey ko lu bari waaye sëñ Bousso bi tegtal ko sëñ Maxtaar Penda si moom ba mu demee sëñ Maxtaar da ko xamal ne ko euh, bul dem fenn toogal fii ndax yow yaa wara a doon ki nga xam ne bu ëllëgee yaay xettali xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina saw saw xeet la maanaam sam sa sam kon gis naa ne yaa ngi waaj a dem waaye bul dem toogal wax ko yu bare bari ba sëñ bi ci loola la sukkandiku ginnaaw dogalu yàlla bi daal di eh, eh, fomm yoon woo yoon wooyu mu doon xalaat cofeel googu tax na ba Cheikhul Xadim bind xasiida koo xam ne mi ngi ko bind ci baxarul basir tënke ko xarafi muhammadu buso muy turu sëñ buso bi bi ak sant wi fii sax nag ci lañ xame ne ndekete maanaam buso ji la doon cosaan ci bind gi mooy siin baa ak siin loolu sax jàpp naa ne sëñ sëñ sëñ Mbàkke am na am na fu mu koy leerale wala sëñ Modou sëñ Mbàkke am na ñoom ñaar kenn ci ñoom am na ci koy leeral di wax na cosaan la moo doon siin te firnde ji mooy sëriñ bu mag bi bi muy bind xasida ci nijaayam te tënk ko arafi tudd ak sant wi buso gi da ko def siin mu muhammadu buso fu ko saat saat gi day mel ne kon du ñëw ginnaaw bi la ci xasida googu nag ci ngay xamee nag dëgg dëgg jikko koy sëriñ buso bi ndax ki koy xamle fii mooy ki waxoon ne man sama nijaay sëriñ buso bi laa niru jikko damaa gimmi rek ñu toog ñu toog ma ci makaarimul axlaaq moo ko waxoon waaye wane ci jikko sëñ Buso bi xam-xam bi sang bi mu doon xarit gi gi dox seen diggante ñoom ñaar siiwug daraja ak sëñ Buso bi tedd tedd gum tedd ay cosaan tedd gum tedd aw askan waaye tedd gum tedd fa yàlla ci ak ragal yàllaam ak maandoom ak sàmmoom ak jikko yu rafet yi ñu gërëm yëpp daje ci moom waaye wane na wane na it ci xasida gi moom Cheikhul Khadim ne sëñ Musaa Ba ku teel a am yitte ju kawe la ba nekkee ndaw rek la tàmbali di yoxam ci ku jëm ca daraja yi gën a kawe te loolu danañ faral di nettali ne bi muy waaj a samp kër rek dafa jaayanteeg boromam ne ko duma ma samp kër mukk te mayoo ma am muy góor muy jigéen rek mu doon ab ku ñuy maanaam doon boromu cër dégg nga ci boromam ba suñ borom nangul ko loola mu soog a samp loolu yitte mënu koo gën a kawe eh, ak yeneen nag yoo xam ne wan wane na ko ci xasida gi ni ma ko junjee woon ca eh, jotaay ba jàll wax ne suñ biso bi jàmbaar la woon joo xam ne su ma saan a jàkkaarloo ay noonam du daw du deltu ginnaaw loolu Seexul Xadim seedeel na ko ci xasida gi te ko jàngee ci leer waaye it na ci wane na ci xasida gi ne suñ biso bi ku rafetun jikko la ku tabe woon la bu daan teral ni mu daan ni daan alage ni daan xeexeek noonu yàlla yi di leen alag noonu la daan terale ñi ragal yàlla mu ne yooyu yëpp nag mënu mënta ñàkk ne ci moom mënta ñàkk daje ci moom ndax mu Muhammad ji tudd moo ko jox loola kon kañ ko tudde moom la niru loolu andi na ko ci xasida gi moo tax mu wax ne kon ci miim gi minal murtaji غفران ذي العرش مولاه إلى الخضر من الخنديد من قل شرواه kii bind xaraf yi dey mooy ki yaakaar njëggalu borom aras mi nga xam ne mooy boromam moom sëriñ gis nga toroxlu gi foofu te ma ma mënoon naa wax ne kii ki bind xasida gi mooy dégg nga jarbaatu suñu buso wala mooy doomi diw waaye dafa ne ki yaakaar njéggalu boroomam mooy mooy bind xaraf yi ci kum ko jëmee wax mu mu mu mu mu daal di nag tàmbali nag di di wane nag suñu buso bi eh, mooy ki nga xam ne ab sang la jàmbaar la ku yëkkatiku la koo xam ne gis ku mel ne moom daal yombut gis ku mel ne moom yombut man xal la charwaa dana ko wax ki koy wax de ba tey bëgg na maa gën a xam ku mu doon mun la kooku xamimun samimun aalimun daarasituhu karimun karimul asli jammat mazaayahu xarit la boo xam ne daal bu buñ bu bu buñ sopp la waaye xarit bu sopp kam sopp la ku am cosaanu ak cosaanu ci jikko ju sell ak jikko ju baax ku bari xam-xam la koo xam ne siiw na dara jaam dafa siiw dafa tasaaroo bu ñëpp xam ko ku tedd la ci jikko waaye ku tedd la ci cosaan koo xam ne ay ngëneelam dafa bari lool ba sax kenn mënu koo lim ci ay abiyaat ci ay bayit dana ko ba tey bëgg na maa xam ko mu ne majidun xamidun lam yazal yabtagi al ula ladun shabba xatta xaaza ma kaana yahwaahu ku tedd ngoog jikko ku boole daraja yi wala ku boole jikko yu rafet yi nga xam ne dañ ko gërëm sant ko yëpp mi ngi mi mi mi ngi nii may wax mooy ki may kii mooy ki may wax kooku nga xam ne mësta dañ di sàkku ak kawe mooy kon yitte ju kawe ji ma doon wax mësul dañ di ko sàkku la dun sabba fa mu doone waxambaane màgg jëm di jëm ci mag la ko tàmbali wone ba yàlla may ko mu doon wut lépp mu am ko fii mu daanee de wax ji nag ak bayit bi mu ci teg xam naa ku mel ne man ci sama xam-xam bu gàtt ak sama ñàkk dégg tuuti naa ci bëgg xam li sëñ bi jublu ndax bi mu ne xataa xaaza maa kaana yahwaahu te mel na dafa wone résultat bi nga xam ne moom la yitte ju kawe sëñ bu soobee jur te loolu du du woon yi fi àddina nekkuloon ku doon wut àddina da doon wut yàlla ak daraja ci yàlla ba yàlla may ko la mu doon wut xata xaaza maa kaana yahwa xam gi sëñ bi xam ne sëñ bu soobee nag li mu doon wut ci yàlla am na ko te bokk na ci li mu doon wut ci yàlla ci ni nga xam ne noonu lañ ko toxalee ci suñuy waajur ak suñuy ma ak ñoom ñoom ñu jële ko ci seen i baay mooy ne booba bokk na ci li sëñ bi junj fii mooy maqaamam xutbaaniya bi nga xam ne jamono yooyu ñoom wax nañ ni mu ngi woon ci loxol sëñ bi loolu nag xam naa waxtaan wax ju xaw a xóot la waaye sëñ bi dafa dafa bi mu waxee loolu ba àggal rek dafa am bay duñ ci teg woo xam ne ñoom mag ñooñu buñ ko daan firi dañ ko daan firi xutbaani yi googu mooy li wax ni nag ci xarful miim ñaareelu miim gi ndax muhammad miim gi dafa sadda kon ñaari araf la ñaareel bi nag ci la waxee marami ladayhi l yawma sayfun muhannadun wa ghimdun nafisun ma libaasin faqadnaahu ginnaaw moom lam doon wut ci boromam am na ko ci yitteem ju kawe may itam kon li may sàkk fi moom tey jii moom sëriñ bu soobee tey jii man sëriñ bi li may sàkk fi moom tey jii mooy jaasi ju ñu hindal jaasi ju ñu liggéey hind xam nañ ko ci waxi ni arab mu muhannad ànd ak mbar moo xam ne mooy ëmb jaasi jooju waaye na doon mbar mu gànjaru bu ci yem na ànd ak koddaay koddaay loo xam ne dañu ko yittewoo dañu ko soxla woo ku xam na ne fii señ bi mën naa am jubluwu ci jaasi jubluwu ci mbar jubluwu ci koddaay waaye moo tax magi magi lenn ci magi musubi daan ko firee ne sëñ bi fii da doon junju maanaam kinaay la jëfandikoo fii boo xam ne li bëgg a wax mooy xutbaani yi ji nga xam ne moo nekk ci loxo sëriñ bi suñ faaw dana ci jóge te bu sañoon bu ciy jógee ci loxoom lay tege ba tax mu sàkk ko ci loo xam ne dafa xaw a niru eh, cax <laughs> buñ ko sañee wax waaye ma ne su ko jàppee ba tey ci jaasi jooju muy wax ak mbar moomu ak yére yi comme tudd nag jaasi tudd mbar tudd yére yoo xam ne xëy na kuy xare moo ko war a soxla woo waaye ku ne xam ne sëñ bi xare ji wut moom eh, xanaa xare ak noonu yi nga xam ne ñooy noonu yi taxoo doomu aadama bi comme tudd na yooyu nag gis nga ci eh, lu wax joo xam ne day xeetoo mu daal di indi nag taxawaayu taxawaayu taxawaayu sëriñ Bousso bi ci xare bi ca xare ba fa xare ba gën a mettee mooy mooy lañ doon junj ci njàmbaaram loolu sëñ bee ko seede ndax ci xarful daal ga ci muhammad ja ci la waxee ne damuuru laida damuur waaw xam nga damuur moom ala wasni ni waaw si xam mubaalaga la mooy koo xam ne dafa dëkk ci di mokkal ay noonam di leen duma ci kaw ndigal di leen di leen jaarale yoon <laughs> damuurul aida waxul daamir wala mu dammir rek yem ci waaye damuur damuur al koo xam ne dafa dëkk ci di euh, alak aka mokkal ay noonam fan la koy defee indal waga fa mbémbërem xare ma wala fa moo koy firee xare mooy fa xare ba gën a mettee jaxasoo ba am tampaloo tampaloo ba am ña ña ña doon ay jàmbaar sax di xaw a deltu gannaaw waxu waxuma laag nag ñi nga xam dañoo yaafus wala ñi nga xam dañoo ragal waaye nee na foofa nag fa la sëñ Bousso di gën a wone fitam fa lay gën a wane njàmbaaram fa lay gën a toroxale noonu yàlla yooyu damuurul ida inda al waga mu ne waa summa mukrimun topp nag noonu muy alage ay noonam noonu lay terale noonu lay terale li ahli tuqa ñi nga xam ne ñooy ñi ragal yàlla ñu baax ñi moom du leen toroxal waaye da leen di teral noonu yàlla yi nag du leen di di nga toroxal moom kon loolu dëppoo naag la Seexul Xadim mi mi mi wax lii la mu waxoon ca mu waaxe bu ba muy tagg turandoo sëñ bu sobe wi di sayyidnaa Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam waxoon ne in raama ilman aw raama gunman aw raama zulman baaxi liqaayi fa daaka yuhda wa daaka yuhda lahoo wa yurda daa bi shaqaayi day daal di taxaw kon taxawaayu li ak kiltaa yi day yi laha saayun tulaazimuhu badlun wa basun li man laanu wa man jaaru ci raaya ba wax na sallallahu alayhi wa sallam daal dafa yore ñaari ñaari loxoom yi muy ndeyjoor bi ak càmmoñ bi ndeyjoor bi moom day teral ñu baax ñi di leen suturaal di leen taxaw waaye càmmoñ bi nag ci lay alage nag noon yi kon mooy damuurul ida indal waga summa mukrimun li ahli tuqaa mu mu jeexale nag wax maanaam ñetti baat yoo xam ne nag juñu naa ko ay yoon ci wax ji moom dafa tënk lépp moom nga xam ne bu ci yemoon rek mu doy bu bu tagg wutoon sëñ bu soobee dara lu dul ñetti baat yi rek mu mu jeexale bayit bi kon day doy sëkk tagg wa hada mudahin musamma kii may wax daal mooy ki nga xam ne dafa niroog turandoom ba niroog turandoom ba ci lan jikko te buñu fàtte moom moom bi moo wax ne man sama jaay sëñ bu soobee laa niru jikko kon loolu day wane ne ah sëriñ bi mooy yonent bi rek kon wa hada mudahin musamma kii daal dafa niir kon kon lii daal laaxar wa nii mu mel daal te mooy bayit yooyu ma jàng ci muwaahi boog raaye daanaka moom la andi fii kon niroo gi am na sëñ bi ko waxal boppam wax ne kii dafa niroo turandoom kon loolu kéemtaan nekku ci ñaari bayit yu mujj yi moom la ñuy tëjee wax ne badiu sajaaya baariun faaqa tirbahu wa ma misluhu qimsun alimnaahu daahaahu wax mooy ki nga xam ne euh, dafa ay jikkoom dafa yéeme jikko sëñ Bousso bi nee na sëñ sëñ sëñ Tuubaa moo ko yéem mu ne ay jikkoom dafa yéeme ay melo biiram ak melo kawam dafa yéeme waaye ku jàmbaare ku raw ku raw baari ku xam dafa am baraa maanaam maanaam la ñuy wax talent sëñ Bousso bi ku am talent ci wàllu xam-xam euh, te bu ko waxtu yi maye woon danañ indi xasida yi nga xam ne def na ko yenn ci yi ci xam rawatina xasida ak baaw naan googu nga xam ne boo ko jàngee rek ci ngay xamee tawxiidam ak ak doyloog boroomam ak yooyu nga xam ne xasida la goo xam ne boo am jeexit la ci wàllu maanaam bekkoor ak xëcc ndox ndox mu manqué loolu moom defe naa am na ñu ko xam bu baax a baax mu ne kon ku am baraax la baraa waaye ci wàllu xam maanaam jekk jekku làkk wi làkku arab bi ak man cee wax ak man cee bind itam loolu itam ku ci ku siiwoon la mu ne kook nag kawe na ak maasam daani daal man daal man daal xawma ku mel ne sëriñ bu soobe daal xawma daal ku mel ne moom wama mislahu timsun alimnaahu daaha daal ne nag kon kii nag ma ma doon wax fii ay jikkoom ngir bëgg ñépp xam ko ba roy ko maa ngi koy jotal nuyoo bu sell jàmm ju mucc ayib jàmm ju neex a joxe jàmm ju neex a jëfandikoo jàmm joo xam ne lu lem neex neex neex lu mu saf-saf neex nuyoo boobu mooy dàq lem googu te nag du yem rekk ci neex waaye ak màggal ak leer maanaam màggal da koy gunge màggal ko day gunge nuyoo bi waaye leer itam da koy wodd da koy muur moo tax mu ne salaamun salimun laa bika shuhdi taamuhu yusayiuhu tabjilu wan nuuru yaxshaahu loolu mooy xasida gi nga xam ne soo ko seetee juróom ñaari bayit lay war a doon mu tënk ko xarafi Muhammad Buso loolu doy na sëkk luy wone diggante bu rafet bi nga xam ne moo doxoon ci diggam mag euh, Cheikhul Khadim ci niñ ko waxee soppante euh, doylonte wóolonte tey firnde yooyu ñu ci ñu ci indi rek ak yeneen sax yoo xam ne xëy na maanaam duñu ko teewlu waxtu yu ñuy wax waaye mu doon yu am solo yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la bu ko defee bokk yi kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen andil moom lañ leen andiloon tey doon ko mottalee jataay bi wala jataay yi jëmoon ci sëriñ Bousso bi incha allahu taala bu ko defee nag xam naa du ñàkk bu buñ jël siwaatee nag euh, du ñàkk ñu tudd tudd bu gaaw ñenn ñi nga xam ne siiw na ne sëñ bi jaar na ci loxo ci wàllu jàng moo xam ci alxuraan moo xam ci xam-xam euh, bu ko defee soga nag dem nag ci dëgg dëgg nag euh, waxtaan wi te mooy maanaam njàngum sëriñ bi nag ak fi mu jaar ak ya ca aju yëpp kon ñu ngi yemale foofu suñuy kàddu leen sant bu baax ci teewlu bi sant itam Cheikh Abdoul Khadir Bousso mi nga xam ne moo nekkoon ci wàllu xarala yeeg eh, ak ak image yi di ñaan yàlla defal ñu ñun ñi wax ñu jariñu waaye ñi teewlu jariñu eh, ñu dajawaat fi insha allahu taala eh, bi jaay Cheikhna al Xadim ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإني أحمد